xibaar yi euh, vendredi 23 euh, novembre 2023 euh, dañ koy commencé rek par le vote du budget de l'Assemblée nationale tey nag ministère de l'urbanisme du logement et de l'habitat et de l'hygiène publique moo aye donc budget bi nga xam dégagé nañ ko pour ministère boobu mu nekk na une un budget de quatre-vingt-six milliards de francs CFA mu nekk rek budget boo xamante ne dafa sukkandikoo si ay objectifs fixés ah dans le documents de planification sectorielle dans le document aussi de programmation des dépenses les projets annuels de, la, de performance et les travaux budgétisés annuellement. donc euh, voilà ñu ñëwaat encore ci beneen force mooy la force des convergences républicaines donc convergence boobu nga xamante ni ki nga xamante ni moom mooy Babacar Ndiaye moo ko jiite nee na convergence convergence boobu bu nga xamante ne moom moon allié woon rallié woon ak euh, Benno Bokk Yaakaar nee na moom bokkatul daal mu ngi génne na boppam daal si euh, Benno Bokk Yaakaar ki nga xamante ne moom mooy Babacar Lô Ndiaye déclare maa ngi leen di informer si sama décision euh, ne ma bokkatuma ah, si li nga xamante ne moom mooy la coalition Benno Bokk Yaakaar donc ñu dem ci Mbour Mbour ki nga xamante ne moom moo nekk maire de la commune de Mbour Cheikh Issa Sall par ailleurs moo nekk directeur de dépôt et de consignation moom offrir na école yi ak ASC e yi nga xamante ne ñoo nekk Mbour en lot d'équipement d'une valeur de soixante seize millions de francs CFA pour ki nga xamante ne moom mooy Cheikh Issa Sall nee na euh, lool bu boo gisee mu def action boobu noonu c'est parce que éducation dafa nekk loo xamante ne lu priorité la moo tax mu vraiment mu jël engagement pour euh, offrir euh, équipement yooyu ñi nga xamante ne ñoom ñoo ñooy école yi ak ASC e donc ñu dem ci Kaolack Kaolack euh, ñu ngi wax ci benn phénomène la prise en charge des violences faites aux femmes donc ñu ngi def a euh, jéego ay jéego pour mën a vraiment prévenir prévenir phénomène boobu nga xamante ne mu ngi euh, dal ci askan yi notamment ci jigéen ñu ne initiative boobu objectif bi mooy réduire les violences faites au femmes ñu ñëw si actualité internationale ak accord bi nga xamante ne accord bi Israël ak Hamas si euh, étage yi nga xamante ne otage français yi nga xamante ne Hamas tegoon na leen euh, loxo donc ñu ñëw si accord boobu pour libérer otage euh, yooyu nga xamante ne jëloon na leen aussi denc leen foofu nga xamante ne moom mooy Gaza. ñu ñëw si sport ki nga xamante ne moom moom même Mohamed Salah actuel dauphin de Manchester City ñoom dañu war a accueillir Reds suba incha allah à 13h30 foofu sa sa sa Manchester. donc euh, ñu ngi naan daal les citizens favoris. ñu ne équipe boobu nga xamante moom mooy Manchester ñu ne équipe boobu nga xamante moom mooy Manchester City ñoom fa ñoo nekk favori après 23 euh, victoires yi nga xamante ne def nañ ko am nañ ko d'affilée ci euh, championnat boobu donc ñu leen ñu jaajëfal bu baax a baax ci teewlu bi te di leen ñaanal yëndalu jàmm. SeneInfo International SeneInfo